asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dama ne sañu ñor toog sañu noppalu ab liggéey defe naa ne noppi euh, moo gën noppalu tey ñu bëgg di siwaat ci Casamance ak point stratégie nga ne Macky teg na ko non seulement pour taqal Ousmane Sonko mais pour confisquer la mairie de Ziguinchor Macky euh, li nga xam ne jël na ko décision te buñ gaawul dana taqal Ousmane Sonko loo xam ne Sénégal gépp dañ leen naqati duñ ko faj mais par droit international euh, mbir mi dana mën a leer waaye Macky na ko bëggee la ko nara a doxale Casamance tubaab yi ñoo ko liggéey noonu def ko ak ndañ fëll ndañ fëll maanaam Sénégal dafa nekkoon stratégie boo point de stratégie boo xam ne dafa sensible donc il fallait ñu créer zone bu mel ne Casamance mun dañ fël ñoom bu nee ba jaaxle rek mbëkk fa dem bu bëggee ay aw ay toggee ko fa bu ngeen seetloo leen tous les chefs rebelles de la Casamance am nañ passeport français te ñu ci bari ils ont en France kon Ousmane Sonko euh, bu fekkee ni dikk na yéen ñoo ñu woy ay rebelle mu wér ma du ngeen ay rebelle dafa am lu leen naqari yàgg metti kenn faju ko ngeen di ay sénégalais jóg taxaw bëgg koo faj bant yëpp dagg nañ ko Casamance gépp yàq seen nañ ko àll bépp soldaar yi daw nañ fi di toppi rebelle di rey ak di fetal te li ma jaaxal ci soldaarub Sénégal kum rey rek ab sénégalais la dama ne soldaarub sénégalais kum rek sénégalais xeex bu fi mas a jaar soldaar yi bokk ci xeexub jàmbur la bu ñu rappelé en 1914 18 soldaar yi jógeen fii tubaab bi leen moomoon yóbbu leen ñu dem xeexali tubaab bi bu ngeen fàttali ko 39 45 le cas de Thiaroye yàggut Sénégal yi demoon xeexali France France wër leen bët ñibbi bisu mu rey lépp yeneen bato yi duñ dikk mu bënn ko diigal ko ñu des ci ndox mi bu ngeen fàttali ko geeru Madagascar geeru Madagascar li ko waral lu mu doon geesu Madagascar tubaab yi doon xeex bi tubaab yi xeex Sénégal dem waldu ji kon Sénégal musta xeex la guerre d'Alger Algérie bi nga xamee ne ñuy xeexee bu métti France yi ñuy jël sa Sénégal yi yóbbu ñu rey leen fa ñu reyante fa bu ngeen fàttali ko Vietnam Sénégal jëloon na ay bagages am soldats yi dem xeex fa ba lu bari dee ca kon France bu fekkente ne manipuler na Casamance defe ko noonu ba soldaaru sénégalais bu jógee yorok fetal xalaatul kum dul rey lu dul ab Casase askan wi yëpp ko bokk naqarlu kon bokk jóg ci réew mi ndax jóg ci réew mi jot na dama ne jóg ci réew mi jot na. Ousmane Sonko est de la Casamance Macky Sall est de Kaolack man mii né à Saint-Louis mais je vis à Thiès kon naturellement noonu la Sénégalais bi déplacé noonu lay delsee noonu lay duggee ñu woy ay rebelle ñu ne ci àll bi am na lu leen naqari ñooñu woy ay rebelle am na lu ñuy xeex ñu woy ay rebelle bi lay dun ay rebelle seen droit lañ soxla seen seeni bëgg-bëgg ci réew mi lañ soxla war a jot ci Sénégal comme tous les autres Sénégalais mais loolu amut muy aw naqar ci ñoom ñu jóg faj ko à leur façon Macky Sall ci rëbi lii lay aw accuser Ousmane sonk accusation boo xam non seulement le monde le monde le monde international mais àddina bépp dañuy xam ne Ousmane Sonko kon mooy manipuler ay rebelle wala mooy rebelle bi muy am ak a xeex Ousmane Sonko lu tuut la wala judduwul Ousmane fii la leen fekk te bu gouvernement bi deful dëgg fii la leen di bàyyi avec Ousmane sonk bu soobee yàlla am na yaakaar ne li ñëpp jéem tële ko Ousmane sonk dana ko def ànd ko waa Casamance ànd ñoo ñooñu ngeen di ay rebelle ay citoyens sénégalais taxaw faj ko alerte bii nag dama leen koy jox Macky Sall lim nar. te nar ko rebelle yi yëngutu yëngatu wala soldat dem jaxase àll bi ñu jiñ ko Ousmane Sonko créé benn délégation boo xam ne mooy dem jëli mairie Ziguinchor Macky mu nar lépp dañ koy xal soldat yi day yabal ci biir ñu taal ay dëkk daggi garab rey ay benn benn nit ñu takkal ci Ousmane Sonko confisqué mairie bi comme quoi mairie bi mooy financé rebelle yi te loolu lépp amul ab saay saay boo àndeek moom fi mu jëm bala faa àgg tudd ko bu ko defee day dëpp day dëpp waaye accusation bi ñuy préparé pour Ousmane Sonko dama ne bu mu bett benn Sénégalais bu mu bett benn Sénégalais naan faa aw accusé ko téye ko wala ñu aw fa nangu nangu mairie nangu mairie bi mën na ko accusé ko wala ñu aw fa nangu mairie bi te buñ ko defee Sénégal géppee perte ñëpp bokk pert kan boo ko jóg ci suñu bopp Ousmane Sonko nit ku baax la Ousmane Sonko jullit la Ousmane nit ku yiw la Ousmane ku ne la mën a defal yàlla moo ko mooñ defar ko yónnee nu ko yàlla dogal Ousmane rawee nu téeméeri at li muy xalaat ak si diggante bi mu toll ëpp na téeméeri at moo tax pour ñu mën koo comprendre du yomb waaye heureusement ñi nga xam ne ay activistes lañ ak ñi nga xam ay patriotes lañ. ak ñi nga xam ne ñoo topp Ousmane Sonko ànd ak moom ñooñu am nañ xel moo xam ne daañu mën a waxtaan ak askan wi ba teg leen ci yoon bu baax Macky Sall du nitu dara te nouvel ordre mondial jënd bision boo xam ne waxuma la Casamance waaye tout le Sénégal dana ko confisquer mbiri góor jigéen yi ñuy wax du fi jógee noonu de déedéet Icon City Icon City bu noppee da ngeen gisoon bu gisul day mos leen koo gis dama ne. Ousmane Sonko ak la Casamance la ay dellu si waaw tout la Casamance prenez vos dispositions tout la Casamance prenez vos dispositions l'armée sénégalaise va va se déguiser comme des rebelles ils vont brûler une partie de la Casamance et accuser ces rebelles état bi dem assemblée nationale ne comme Ousmane mënu koo gérer ñi ngi reye te boomul ci la bokk dañuy confisquer Casamance. te buñ ko nangoo délégation spéciale moo fay nekk buy sukkandiku ci cadre présidence de la république kan bokk jóg diju bokk yeew te dellu wóolu Ousmane Sonko mam ci lu ma wér son projet solution il a des solution pour la Casamance un fils de la Casamance qui va réussir la Casamance et tous les Casamançais nous allons vivre ensemble en tant que des frères yiite ni Macky Sall yi yëpp day fen Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne si dana ko def mu jëm ci lu yàq Ousmane defarkat la Ousmane ko xam xaalis la Ousmane fan yii tudd fi lu am solo loolu ñu naan euh, monnaie locale communautaire loolu Sénégal amoon na ko fi Sénégal amoon fi loolu ñu naan barce barce barce bay kon ka bu ko Ousmane tuddee Casamance xam ne bu di ko wax production bi nga xam ne moom la Casamance di def. ñoom seen benn monnaie locale ñu mën a téye seen yëf ba mën koo gérer mu dir soit ci marché bi kooku dafa ëpp bopp Macky Sall da koo ëpp Macky xalaatu ko te li gën a kéemaane dégg naa dof boobu avocat sëy mook Moustapha Diakhaté ñu dugg ci domaine boo xam ne maîtriser wuñ ko comment se fait-il que Akon Akon bërki démb la judd Akon City ñu créé ko wutal ko kuréel su boppam wutal ko xaalisu boppam te xaalis boobu ay kon dépendre ci BCEAO mais mi ngi dépendre ci Federal Reserve bii la dépendre ak banque européenne yi ñoom dagam ay kon moo ko am juddu bërki démb pourquoi la Casamance mënu ko am pourquoi la ko am te Sénégal mu dëkk am mu local tànn ci àdduna bi ñun barca barca lañ daan def waaw am na ñu daan jógee Kajoor yóbbu am pepp Casamance ku ni ñëw indi tiir am na ñoo xam ne danaa jug tool yi bu xoolee tool yi tool yi meññi tool yi baax ñu jël siwaat kajoor jël seeni fos ak seeni jur bu ñuy Casamance leble wala jëlee Casamance yóbbu kajoor leble muy transaction boo xam ne suñu étudiants yi int ñoo ñàkk jom mais mënuñ ko gëstu ba def muy lu légal loo xam ne daañu ko ci forme yu bari boo demee Chine am na fa ñoo xam ne ñoo xam ne section boo xam ne bëgguñu xaalis barce barce la ñuy def ñoom seen aadamoo moo araamal xaalis ay chinois dañ te dañoo développé ba banque chinois yi di sukkandiku ci ñoom di ànd ak ñoom di liggéey Ousmane dañoo raw de santa ans je ci Casamance ngir yàlla dama leen di ñaan yéen ñi ñu woowee ay rebelle vous êtes des dama bëgg ngeen ñëw ci dëkk bi ànd ak Ousmane ngeen bokk teg ko ci yoon ngeen bokk li ngeen waxtaan. ngeen bokk jëfe ko te it Casamance ngeen jóg seen bant yëpp dagg nañ ko dark si yëpp buur nañ ko fii la Casamance comme comme comme comme désert te Casamance ni meloon y a cinquante ans bokkut ni mel léegi même am na usines yoo xam ne ak nappkati jën yoo xam ne dañuy jël jëri Casamance yi dem ba gàmbi yóbbu ko ci usines yi pour pour ñu transformer ko Casamance ni jëlee jën yóbbu Gambie te loolu lépp c'est illégal Adama Barrow complice la euh, le président Mballo complice la Macky Sall complice la yow ana noo mën a xeexe sa région ana noo mën a xeexe dëkk bi nga xam ne yaa ko jiite soldats yi daw ci àll bi di rey ay innocent mu lu metti doon du tiis tey Ousmane Sonko bu jógee ne damay defar Ousmane su ko jóg Casamance wóolu ko Ousmane Sonko ñëw tegugul projet politique am ah? Macky sàll ànd ak son armée ànd ak ay nit ñoo xam ne du nit ci dara ndax Sénégal yi ngi torox tey tey bu ñu bëggee takkal Ousmane Sonko ci rébellion te yoonam nekku ci yéen ñëpp ngeen a part dama ne gën jóg taxaw bu leen ko nangu bu leen ko nangu te Ousmane Sonko lépp loo xam ne mën na ko na ko def pour avertir l'opinion internationale te ngeen góor góorlu bu ngeen góor góorloo ba jël 60 pour cent des député lépp day jeex tàkk dama ne bu ngeen occupé assemblée nationale Casamance des ci jàmm man Ousmane Dara am naa ci lu ma wér dama ne bu ngeen occupé assemblée nationale yéen opposition bi doot leen dégg aw ay Casamance waaw te heure bu ngeen changé xaalis bi dugg ci devise boo xam ne Sénégal ko moom doot leen dégg tubaab yi bari tànk foofu or bi nekk Sabodala bari na Kédougou les mamelles de Kédougou les marbres qui sont à Kédougou nga xam ne kenn ci àdduna six foot maanaam géej gi lekk gi maanaam Casamance yàllaa ko tabaxal boppam waaw def ci ay xéewal nocc ci ku mel ne Ousmane Sonko muy Casamance pur mu nar ko teg ci bopp réew mi waaw ba tax na ñun ñëpp nag war na lu jóg te kenn ku nekk de xalaat lii Macky Sall nar taqal Ousmane Sonko ci rébellion bi nga xam ne adduna bi dañ koy ragal taqal Ousmane Sonko ci rébellion bi ba sàcc yi ñëw sàcc oru saabu doole bi dañ koy ragal. takkal Ousmane Sonko ci Saba Dollar taqal ko ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon ba nga xam ne dañ naan rebelle yi ñooma rebelle yi mën nañoo attaqué sax Saba Dollar ñu jiñ ko Ousmane Sonko rebelle yi mën nañoo attaqué Saba Dollar dóor fa ay bomb par exemple ñu ne kara ñu ne Ousmane Sonko te armée bi ñoom mi ay rebelle duñ ko def moo tax Ousmane nañ ko aar nañ ko yiir nañ ko taxaw di ko ñaanal jàmm. di ngeen averti kilifa yëpp kilifa yëpp projet bi Macky Sall yi def jëmee ko ci rebelle yi bu ko awee ci Ousmane Sonko yoonu Ousmane Sonko nekku ci Ousmane dana defar Casamance ba même booy dana jubale ñëpp ñëpp nekk ci jàmm kon may jéggul tey ñaan jàmm man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience yal na buur yàlla suturaal yal na buur yàlla suturaal amin amin amin jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf